الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ويجزى جزاء أوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله مولانا العظيم حضرات السادة في الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب الفضيلة معالي الوزير وضربي الوفد والمرضى من بين الكريم فهمه شامبك الساعة هذا هو إليكم أطيب وأخمر التحيات من سماعة الشيخ أبي بكر خليفة الشيخ إبراهيم فتحي رضي الله تعالى عنه وأيضا باسمي أشكركم على تلبية دعوتي وتسريب هذه الحفلة الكريمة بموضوع مع أني أعتقد أن كلنا سرع في إجابة هذه الدعوة لأنها الحقيقة نحوة صادرة من تلك الروح القاهرة رأي الشيخ إبراهيم الذي نعتقد ابتداء من هذا اليوم بذكرى فلا شك أن قضى الشيخ إبراهيم فاطمة هو الذي جذب قلوبكم وساق الأخبار إلى تحمل وتزدد المشاعر وأتحاد السفر لحضور عالية هذا المنطقة المنتخب الحلمي الأخوي الكبير بقية الاستفادة من كنوز حياته القائمة وكلنا نعلم أن تتزودوا من وقائع لتعاليم الشيخ الخليل رضي الله تعالى عنه المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصريحة مع وتجارب روحيه تنير له الطريق وحقق حياته أن مليئة بالإنجازات في تقبل خطوة الشيخ القديم وتقمص صورته ولم يخالفه في شيء كما قال الشاعر في وفاته الإمام حسن شبيب لأخيه لوحده وذاته يقتفي إسره مساء وصبحا قائلا هذا حيث يصبح حياتي حمد الشيخ إبراهيم حمل شيخي حملا ثقيلا من خصال خديم خير سقاته وختاما نشكر كل من ساهم في انجاز هذه الامسيه الفكريه السعيده من قريب او بعيد ولا انسى الاخوه في اللجنه المشرفه لاعمال هذا الملتقى برئاسه الاخ الكريم خادم بكر عباس واخوته جزاهم الله خيرا وشكر موصول إلى رئيس الجمهورية مجلسا وجميع أفراد الحكومة ونتمنى أن يكون هذا اللقاء الأخوي بداية طيبة بشهيرة طيبة أصل وفضل وفرحها في السماء لها كل خير بإذن ربنا ويضرب الله الأمثال للناس نحن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقما يريدكم sant yàlla sunu borom li nga xamee ne nee nañu kattanu nu yëngatu ci li nga xam ne euh, yëngatu mënut a ñàkk waaye yëngatu ci loo xam ne njariñ la lay gënal ëllëg ak tey loolu dafa xam ne lu am solo la doomu aadama mënut a ñàkk a yëngu lu tax sunu borom wax ne nit ki amul lu may lu mu jëf te li nga jëf kenn du la ko yàqal kenn du la ko sikkal dañ la koy delloo dañ la ko defal loo xam ne lu kawe seen jot lay doon ëllëg nga mën koo jariñoo moo tax ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp mbolam ni teew ci jotaay bi bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal borom daal mu ci ci jiitu sëriñ Abdou Samad ak bokk yi ñu bokkal mbolam mboolem njabootu sëriñ Touba ak yi ñu bokkal euh l'islam bi bayu ñu kenn ñu ngi leen ci nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam euh ñu tax na leen a ak ñu mëna a ci góor ak jigéen te ci biir loolu dañ ci beral loxo ñi nga xam ñoo fi teewal ki daan teg ci bopp réew mi moo di président Macky Sall moom nga xam ne moo di jiitu réew te euh, Omar Gueye jiite ko mbooloo nga xam ne ñoom la àndal ñu bokk limaale ci Abdoul Karim Fofana ak euh, Cheikh Mbacké Sakho ak euh, sous-préfet adjoint bu bu bu Plateau ak. Euh, mën nañoo wax ne jiw ak ak sëñ Cheikh Ousseyn Faye su ko premier ministre nee na ma ci ci délégation bi la bokk kon damaa defe ne jiw yi da ngay def ñaari mbir koy boole ndax sëñ Cheikh Ousseyn Faye ma leeral lépp sëñ Abdou Samad ni euh, sëñ bi sàkk woon na ci moom mu teew waaye am gàllankoor boo xam ne moo ko teree teew mu sàkk woon ne naa ko naa ko jotal mbokk yi xam ne loolu loolu moo ko teree moo ko teree teew. te Serigne Modou Mbacké Bara Dolly ak Abou Sall ñoom it bokk nañu ci délégation bi nga àndal te yow ministre Omar Gueye kon ginnaaw ne nuyoo yooyu jàll damay eh, leeral ne nuyoo yi yëpp nag nuyoo moom mi xam ne moo di xalifa Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti muy nuyoo yoo xam ne lu sori ci moom la lu lu lu lu. lu lu lu ñu mën a mandargaale la ci ak cofeel ndax euh, wuy bi nga xam ne wuy si nañu ko woote bi nga xam ne moom lañu moom woote te commission bi nga xam ne seen xaadim euh, taxawee nañu ko muy jëm ci wàllu culture bi euh, ñi ci wuy si dafa mel ne dara jaar woote bi nga xam ne moom la sëriñ bi woote moo tax ñu wuy te ñu gëm ne wuy si ko wuy si ñun ñëpp ñoo ci ñun ci musique yi ndax xam nañ ne dafa mel ni ruuhu Cheikh Ibrahim mooy xam ne moo mu ballu ñëpp wuy si ko loolu moo tax ñu mel ne dañu tàmbali eh, liggéey bi xam ne moom la ñu jëm ci ci bis bi xam ne moom lañ koy jagleel ci keroog bu mu dajeel ci Sëriñ Tuubaa ginnaaw ñu mu jógee ci géej gi ñu tàmbalee ko bis ki tey ci liggéey yooyu ni mu mel ne nag kon loolu li nga xam ne mooy leeru romb boobu mooy li nga xam ne moom ballu woote ba ñëpp ñu mën ko ñu wuy si yaakaar naa ne loolu rek mooy li ñu noo dam moo tax ma gis ne euh, mbooleem ñi nga xam ne teew nañu seen xol ak seen i nga xam ne yëg nañu ko woote Sëriñ Abbas te muy wane liggéeyu borom daal moo tax loolu nag su fekkee ne dafa ànd ak ay ay ay ndaje yoo xam ne ay xam-xam moo ko xam-xam yoo xam ne mën nañ cee jariñoo jariñ koo xam ne bii bii bii lay doon yaakaar naa ne loolu ku nekk ci dana xalaat baax ne war na fee mën a jëlee ci loo xam ne ay jàngale Sëriñ Tuubaa la jàngale Sëriñ Tuubaa yoo xam ne moom mi ngi bàyyi ko ci Alxuraan ak sunna te yaakaar naa ne kenn ku nekk xam na ne loolu mooy li nga doon dund li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa wane ci ci ci ci ci ni ñu war a doxee ni ñu war a toppee diine mi xam ne dañoo ndax ki nga xam ne moo tax ñu dañ si muy borom daal suuti nekk koo xam ne kii lépp loo xam ne defoon na ko def ko lenn lu ñu teg ko ci antam ci tànk borom euh, Serigne Touba roy ko nekk ak moom ci lépp nag muy moom muy moom ci biir ci activité loolu moo tax kenn ku ko xam ku nekk xam nga ne dafa jeexital ci moom ci léppam ba dara dañoo dem ba ànd benn yoon dañ ko ñu waxe ne ñenn ñi di wax ne ndox ak suuf euh, kenn mënatul a xajale am na ñu koy waxe moom waaye jàpp naa ne rek li am li wér gu moom mooy képp koo xam ne xam nga dara ci seen diggante ñoom la xam nga bu ñu dégloo li nga loolu mooy la nga ne mooy la tax borom Sëriñ Tuubaa wax ne mooy ki nga ne mooy ki nga xam ne bu sa taxale ko man ci eh, ak ndaw ba ci ak ba ci ba ci ak kon nag bi nga xamee ne ñëpp teew nañ fii waxtaan yi ñu waxtaane ko li nga xam ne nii la ñu ko gën a rafetloo danañu sant bu baax moo leen koo xam ne taxaw na ci ba mbir mi sotti te rafet rafetaay bi nga xam ne moom la am kenn ku fi xam nga ne mbir mi euh, toj na xol te itam yëf diine la yëf Sëriñ Tuubaa la yëf borom daal moo ci la loolu nag bu fekkee ne am na faaw ñu mën a def lu lu lu lu weesu sant sëriñ Xaadim Abbas mi nga xam ne moo ko jëm àndaloon ñu di ko jàppale ci liggéey bi def nañ ci ba am ci ndam yoo xam ne yu kami def lay doon ndax mbir moom taxul mu yomb lool waaye nag bu fekkee ne ñi war a ànd ñëpp ànd nañu boole seen i doole seen i xel faaw lu mu jafe-jafe dañ mujj yomb loolu moo tax mbir bi jafe kon faaw ñu sant ko jël cant gi teg ko ci loxoom moom ak mboolem bi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon commission bi nga xam ne ñoo doon taxaw ñoo doon doon doxal waaye rek ci biir loolu cant gi dañ koy ñëw di yóbbaale ko boole ci ki nga xam ne moo di président Macky Sall moom nga xam ne moo leen fi yebal te euh, mbir mi doon loo xam ne nii euh, bu ñu ko xoolee mooy euh, li li li li ci borom xam-xam yi wax tey boo seetee bu dee ci bi jaxate la bu dee bu dee Basiru Sarr ñoom ñi boo ko xoolee li ñu tekki moom mooy dañu dañu war a dañu war a xool ne ñi nga xam ne ñooy boole ñooy boole ñooy ñooy boole ñooy nit ñi ñooy boole nit ñi ndax mooy ñi dañuy yor nit ñi ci wàllu wàllu wàllu bi ñu war yor nit ñi ci wàllu bi kon euh, mooy mooy mooy mooy ñuy wax ne bu fekkee ne euh, ñi yor diine ak yor àdduna ما أحسن الدين والدنيا إذا جمعها laa baraka law fi dunya bi la diini su fekkee ne ñi nga xam ne dañoo dañoo yore diin ak ñu yore aduna kenn ku ci ne yaa ngi bàyyi li nga xam ne moom nga war a bay ci saw sas lu am ko kenn ku ci nekk lu baax rek lay déglu waaye nag bu fekkee ne dañoo taxale koy nañu xam ne ki nga xam ne moo yor wàllu aduna moom moo ciy gën a war ndax pas-pas dafa bokk nag loo xam ne nii lu zaayir lay doon moo tax dañuy fexe ne lépp doon jariñu nit ñi mooy kenn ku ci ne taxaw ñu seet ne mbooloo bi rek lañu war di lañu war lañu war a liggéey kon loolu moo tax ñu ne li nga xam ne moom lañu jëloon ci ay thème ndax euh, jafe-jafe yooyu am ci wàllu politique mën naa yàq nekkin nga xam ne moom lañu war a nekk euh, mën nañu nekkee ci suñu biir dañuy gis ne kon loolu euh, yaakaar naa ne ministre bi wax na ko léegi mooy mooy mën nañu ne waaw mën nañu ne waaye nag naa ne xoolaat ko bu baax ci suñu biir ndax li ci ëpp doole li nga xam ne mooy liy yàq ci wàllu boobu mooy wàllu adduna bi ñi koy yëngatu bëgg gi ñu ko seen xol dafa ëpp doole xam-xam bi dafa gi dafa ëpp doole bëgg gi dafa xam bi ne nit ki li muy dugg lu nekk moo xam boo dégg loolu loolu ko ci li ci bi jaxate da nga gis ne kon mbir ci xam nañu nañu wuti xam-xam ngir mën a ba mën a duggee nga mën a nga mën caa nga mën caa loolu mooy mooy mooy li gën a mooy gàttal bi njëkk bi moo di ne xool li nga xam ne jur na ko lépp ci ay sikku ak la lu Basiru Sarr wax ci ñi nga xam ne ñooy ñooy yàqalante di def ay naka su dul noonu ci ci ay ay ay ay ay ay taxaw yu noonu loolu boo ko am na ci loo xam ne yaa ngi fi ngay boole xoolal li ñu tuddee li nga xam ne moo xaw bu yàggul ci Istanbul ci Turquie nga xool yaa ngi nit ku ñu la dee lool ngay lor sa bopp kon yow foo jëm dafa am loo xam ne lii maanaam diine ji moo war a tax moo doon la ñu ko war a làmboo ba tax mu mucc ci li nga xam ne moo tax jàmm dina ci kaw waaye bu fekkee ne ñun ñooy lor te ci suñu biir mën na ko may ñeneen ñi ñu kon loolu foofu ñu jëm loolu nag bu fekkee ne xam-xam bi nga xam moo war taxawu diine amul loolu itam dafay day ci xeet xam mu lam ñu xam sax yi dañ gën a azal dañ koo dañ koo suñu borom dafa nëmmul ci moom pexe ak loxo boo mën a jaar ak ku la mën a yare ca lu fi dafay def lay mujj ndax lépp suñu borom nekk na ko ba noppi loolu itam dañ ko ci seddaat dafa am ñoo xam ne kenn mënul leen a jubbanti waaye nag ñëpp ñu di marché ci dënn isan lako lam yox nag saa yi dat bi nag asan faxat xaamaman rab baa wa xaaral mu am moom kooku moom kenn mënul kenn mënul ci moom dara waaye nag ñi nga xam ne yàlla dimbali leen ñu mën a li mën a teg ak yoonu siraatal mustaqiim ñooy ni kon yàlla na a bari ca ca ca mbooloo yi ba nga xam ne bu dee ci diine ni ñu ko bëgg dinañ ko am bu dee ko bëggee dinañ ko ko bëggee amee loolu mooy li a xam ne bopp bu ñu seetee yii ñu ne wax nañ ko fi yëpp liggéey borom dara moo tax ci sëriñ Abdou Samad wax yoo xam bi moom la sëriñ Abdou Samad wax boole ko ne moom lañ ci jaajëf samedi dia ke Ahmadou ak ke, sëñ Cheikh lagi, walaupun wala ko ñi nga xam ne taxaw nañ ci kok yooyu yëpp boo ko xoolee jàpp naa ne war nañoo mën a xam bu jauh a baax ne Serigne Touba ku mu joxe rek yow ci joxe ne borom daal moom ci ñun ñi nga xam ne nag amuñu lu may borom daal moom ci nga xam ne mooy suñu buntu ci Serigne Touba def naa tey borom daaw wala wala lii laa ci moom ndax euh, li nga xam ne moom dund na ko Serigne Touba ci nekkum Maam ba ba mu demee ci léegi ba jël ci mu ko li ko bàyyi woon ba li waral gis fii ñuy def muy bu mu dellusee ba gisee loolu lépp lépp lépp doon wut ci moom mooy ngërëm la ci moom ngërëm li nga xam ne moom la doon wut ci ci ci ci Serigne Touba la ba tey noonu lañ ko war a wutal ci ku fi nekkal Serigne Touba waaye nag ko wutee ci ki nekk sa bunt sa digganteeg Serigne Touba nun buñ dee wut ngërëm fi mu nekk nii ci borom daara wuti ci Serigne Abbas lañ ko war a wut mooy ki nga xam ne moo tax suñu digganteeg borom daara wuti mooy ki nga xam ne kii buñ dee joxe borom daara wuti moom la ñuy joxe kenn ku nekk rek si bunt ba nga nekk noonu nga ko war a def suñ ko defee la nga xam ne ñoo ko doon waxtaane bër gi dem Serigne Serigne Touba dana woon borom daara wuti mbir xew mu ne mu ne su fekkoon ne ne ñëpp def mu ne borom daara bu ñëpp defoon na yow soo demee dama soxla su lépp dafa leen boo liggéey du ma sonn benn ñaareel ba man ma ne gis naa ne itam am na lu ñu ci war a boole mooy borom Daaru Muxti Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ci jaareel kër gi de tey lu xew na fi moo xam ne li fi Cerno nekk moo tax waaye bu fi Cerno nekkoon de li xew du xew ndax Cerno mm, ñi ñi nga xam ne dañoo ñi waroon a wax ba nga génn ci ñoo wax ba nga dugg ci bu fi Cerno nekkoon li xew kon moo nekk bind boo xam ne kenn ku ne ci loolu war nañ cee jàngee fexe ba sa kilifa na ko def na ko jàppalee ci anam gi nga xam ne luy mën a tax moom mu nekk ci liggéeyam te doo ko sonal ci dara loolu loolu loolu loolu moo mo war a moo war a am kon yaakaar naa ne suñu suñu jëlee ci lii fi waxtaane yëpp daal danañu gis ne rek maanaam mbir mi eh, ma nga ko nekkoon ba tey mooy ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi di yeete di wax wax naa ko sëriñ am sama léegi ci biir man na ko di di yeete ci rek bañ a bañ a sonn waaye nit ñu am na ci ñoo xam ne nangam xew na mën li ñu li ñu war a def ci ñoom ñu di ko def ci ñoom ndax moo tax a mën leen musal ci li xam ne mooy la gën ci ñoom te yow kenn nga xam ko. aar sa bopp dafa mel ne loolu moom du du du jafe ndax nga nekk ca àll ba di topp ay naka bopp rek ko ca bàyyi sa bopp kese moom yomb na waaye nag dugal ci li nga xam ne mooy li ñëpp bokk taxawee ko loolu loolu moo jafe maa ngi nattal ci ne na leen leer ne Serigne Abbas borom sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne Serigne Xaadim def ngeen ko ba taxawal lii ak képp ku leen ci jàppale nag ba lii taxaw waaye suñu mbokk yi fi teew ñoom ñëpp ñu bokkal borom dara moo ñu bokk ci Serigne Touba ñu bokk ci l'islam ñu ma ko wax ci njëlbeen ñu bokk yoonu murid bi wala ñu bokk l'islam ndax fu mu l'islam mën a l'islam bi tarixa bu mu mën a doon ndax loolu moom Serigne Touba moom tarixa yëpp yemul ci moom ndax du du woon xatal du woon xatal du woon xatal diine ndax par parloo day xatal diine daawu ko def loolu moo tax ah. ku fi nekk ku ñëpp rek ñu leen di sant xam ah, ne am nañ ci ngërëmu Serigne Abbas te ñaan yàlla bi ñu ko ah, tàmbalee tey ba màggal gi jàll lépp lu ñuy def. waaw loolu lépp noonu. lépp delluwaat ci lu ci ngërëm ci. non non non maa ngi maa ngi d'accord. borom dara mu ci ndax yaakaar naa ne suñ ko suñ ko defee rek. lañ ci bëgg danañ ko danañ ko am. te mboolem ñi nga xam ne waxtaan nañ fi ñoom ñëpp kenn ku ci jël nañ ko. sant yàlla rek am na ko bi jaxale. kon nag Basiirou Sarr. sëñ Cheikh ada satu tapi sih, belum aksesnya mesin bersama mesin memudahkan amun mesin motor aksesnya bersama mesin fajar, mesin syekh orang lagi dan imam aksesnya khatib nafas injil satu saya mau Gay minister sini. naa ne daal du du du woon am ndax kenn ku ci ne da ngay feeñal di nekk ci yow rek moo tax moo mu am ñu xam nag ne ci gàtt mooy ku am ku mel ne Serigne Touba da ko jël nag xool ko teg ko di di ci di ci di ci roy di ci sukkandiku ngir moytu yu mu nekk nii loo ne eh, dañ koo dañ ko bëgg a génn ci réew tubaab yi muy muy muy màgg di génnaat mooy dañu bëgg a wax ne dañu bëgg a wax ne seen der boobu ñëw seen der yooyu bu dul loolu ñu koy ñu koy dund di ko di ko di ko di ko di ko def ca suuf ñu jag loo xam ne ñu bëri la ci te daanaka yu bëri ngay dégg ci rayante yooyu loolu koy wax ñoom dañoo bëgg a jàpp ne lu dul der seen der boobu ñoom ñu ñuy tuddee occidentaux yi lu lu dul ñoom lu lu lu lu baaxul waaye ñun gisuñu loolu ñun li ñu gis mooy wane sa unité bu sawaat al jism sabahatal fata wa suul loolu la ñu gis ñu li sëriñ Touba wax ne der bu ñuul taxul nit kii di dof der bu ñuul taxul nit kii di koo xam ne kii dara mënut dugg ci boppam ba ba ba ba jàngal bu sori wala wala xam-xamam mu tasori déedéet nee na sëriñ Touba nee na du noonu te loolu boo xoolee dañ ko gis da nga gis ne eh, mbooleem diplôme yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wax loolu ne seen der moo fi ca kaw diplôme yi am yëpp suñ suñ suñ der yi am nañ ko kon loolu mooy mooy moo ne ñu xam ne kon Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne gis na loolu bu yàgg-yàgg tey door a ñëw yaakaar naa nag loolu na foo xam ne mbir boo demee ci aw yoon ba mu jaar xamatoo fu nga jaar ba ngay delluwaat fa nga jóg yow loolu mooy li nga xam ne moom moo a dimbali ci euh, jàmm Sëriñ Tuubaa ñu dimbali ko kon sax ay na lee du ngeen ko woon séntu waaye nag dafa jaaru ndax euh, ñu ñëpp bokk nga def ca la nga ca war faw sant la gërëm la sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi jataay bi yàgg na waaye eh, nag root la root la ndax eh, lu ñuy li ñuy def boo maree naa boo delloo maree boo delloo maraate da ngay naanaam rek te lii bëgg xol bëgg bëgg bëgg xol la maanaam dañ ci dundal xol da nga xol yi dañ mar bi di leen wëgg te te te buñ mar buñ buñ mar ngay dañuy dellu maraate nunda mane mane bo mane ci mo bo bo mu rabu kenn ci doy mo tax mané li jotaay lu yag yag yi ngeen rek lay ñëw waye nak do ba do do ba do rek lo na xam ne jotaay yi am ñu bind lor waye lor yo xamne du baax lay juro la bu ëllëgé ndax alquran wax ni ko asal ta ko shay wax na ko botul gën taw na jëlé sax am ak wër ak ak wër na ko lu la taxaw na tok nga ne déglu lu jëm ci Sëriñ Tuubaa wala taxaw toog nga ne lu jëm ci programme boobu xanaa loolu loo xam ne bu baax la ko cee mën a jël ko cee mën a amee di sant góor bi ak jigéen ñi ñëpp kenn ku ne ak seen taxawaay di ñaan yàlla suñu borom nangu suñu def te lépp luñ ci ñu ko ak julli ñëpp te yàlla def jàmm ci réew mi def mi julli yëpp maa ngi wax ma ne sunu borom dafa bëgg jàmm ba baatu jàmm ak mboolem kër yi ñu kër yëpp boo ko bëgg ko tëggee rek boo demee ci alxuraan bu néew na dina nekk téeméeri yoon ak yëpp ñeent la kon loolu yàlla bëgg na jàmm te bëgg na kuy wut jàmm te di ko te di ko bëgg kon ñu ngi ñun ñëpp di sant ñëpp di leen yóbbante cant ak ngërëm bi ba tey nag ci premier ministre ndax ko nañ ci mu ittewoo ko lool te xam ne ne loolu lépp ci déglu président de la République waaye lii dem ñu xam ne ñun am na lu koy sëriñ bi ci sëriñ Abbas te mooy li nga mooy li nga xam ne mooy suñu programme mu ci bu dee ci yoonu murid bi yëpp am na lu koy sëriñ Mountakha mooy mooy suñu sëriñ Tuubaa ñun nag dañuy teg suñu tànk rek mooy foofu yow jàpp naa ne am na loo xam ne xamante nañ ko ci suñu ci suñu suñu diggante li ñu gën moom mooy képp koo xam ne teg nga suñu kilifa fenn jàppal ne boo ko yëngu ci teg na loolu képp kuy dàq suñu kilomètre jàppal nga moom loolu boo koy wut dara nañ ko loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy li am kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen yóbbu ci cant ak gërëm yi nga xam ne suñu xol seen bu baax dina doon leen dokkeel moom itam président ci liggéey bi nga xam ne eh, yàlla fekk joxaat na ko ko ci ci eh, coobare suñu borom mu jaarale ko ci doomu aadama yi te xulillahumma maalikal mulk keroog bi muy waat bi muy waat bi muy waat ci ci ci ci ñaareelu mandat bi jàng naa ko soo ko li la ko malikal mulki keroog bi muy war am na koo xam ne li nga wax léegi ci wàllu diplomatie du bis boobu la démissionné te am na ñaar fukki at ci nguuram kii moom di di waat ngir ngir toogal loolu ak suñu borom maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah